mu ne la parce que dañ bugg a taal làmp yi kon lekk leeral si ko oui y a pas de souci alaaj Thierno di seetaan naa démb ngay kii rek barki démb la non ngay waaraate yóbboo mon ministre. D'accord. Oui. voilà mais vous avez fini de prendre vos mu am waxtaan boo xamante dañuy améliorer ni ñuy yore làmb ji parce que lu bëri tere woon nañ ko ci làmb dana dellu si waat ci làmb parce que infrastructure bi permettre nañu dellu ci làmb ñoom mànga ak ñoom ñëpp dañ doon andi ay fourneau di tàngal loxo yi wala ñuy suuru ay mbir loolu kenn mënatu ko woon def ci biir làmb ji parce que gazon bi lañ daan bañ a yàq ak yooyu fii ñu jëm dana possible parce que infrastructure bi ñu am am na lu bëri loo xamante dañ ko bàyyi woon ci làmb dina dellusi pour dekkalaat cosaan loolu nag bu koy am na leen ne waxtaan dana am moo tax ma jox ay instruction ki nga xamante moo yore fédération yi yore groupement sportif bi monsieur Senghor pour que ak CNG ñu commencé waxtaan wi yóbbu ko ci ñëpp ñu bokk ci làmb promoteur yeeg mbër yeeg amateur yeeg su ko defee ñu am ay rencontre yoo xamante ne ku am xalaat dana ko ci def pour que ñu gën a gunge làmb ji nga xamante ne li ci président Macky Sall def dana tax ñu gën koo ñoŋal gën koo defar mu gën a jëm kanam loolu moo nekkoon waxtaan wi nga xamante ne moom la ñu am tey te ñu jàpp ne waxtaan wi ñuy commencé si du waxtaanu benn point waxtaanu benn nit waxtaanu intérêt làmb yépp lay nekk loolu moom mooy tax nit jóg parce que li ñu tax a jóg mooy intérêt général ak luy suñu sport traditionnel loolu moo nekkoon waxtaan wi nga xam moom la ñu seq tey ak CNG li ci dégloo CNG déglu na leen waxtaan wi kay li ma ci wax ku mu dara dootu la ci doy ñoom am nañ ci man yaakaar ma am ci ñoom yaakaar ba pare ma am ci CNG yaakaar nee naa leen waxtaan yi dina tijji du yàgg. te waxtaan yi tijjeeku waxuma la ñoom point yi ñu posé mais leneen i point yi ngi fi yoo xamante ne day bokk ci liy defar làmb dinañu ko ci dugal te képp ku bokk ci làmb di nga am opportunité wax sa xalaat bu xalaat ba ànd ak liy defar làmb dinañu ko jël loolu kay moo gën a yaatu mbiru benn point ñaari point. beneen bi mooy ñoom ba tey ñi dafa loolu xanaa bi may rencontré loolu man je constant mbiri CNG. du mbiri la du mbiri mbër du mbiri keneen mbiri état la état mooy tànn ñi mu am ci ñoom yaakaar dénk leen li nga xamante ne moom mooy développement làmb wala beneen discipline boo xamante ne ci condition yi la ne donc loolu du lu may discuter vraiment ak euh, ku mu mënti doon euh, parce que du loolu moom mooy defar làmb liy defar làmb mooy boo nekkee ci mbir am ci xalaat da nga koy wax surtout lu jëm ci réglement dañ koy wax pour defar li may ñaan ñëpp daal mooy na ñëpp ànd ak daal te kuy wax nay wax wax juy defar parce que làmb suñu yëf la kenn warul wax lu ko yàq wala ngay taxawee noo xamante ne dafay dafay yàq làmb tey euh, CNG choix wu état la comme ni ma ko waxee état mooy gunge état moo yore làmb ji di jàpp tey defe naa ne encore une fois invite bi may def ñi bokk làmb yëpp mooy ñu mobiliser wu fexe nu ñu defee suñu inauguration arène nationale bi mettre ko en service pour gën a développer làmb loolu du tere. képp ku ci am bët boo xamante luy defar làmb la ca waxtaan wa dinañ ko jël en la ca mën a nekk dana nekk la ca mënta nekk ñi bokk làmb ñoo naan lii mënul nekk. avant ñoom seen phase am concertation ak CNG euh, est-ce que jotul nga rappeler leen ne leen ci mémorandum bi lii ak lii moo mën a ne lii lii mënul ne. pour préparer pour mais mais euh, kuy dem marché nag moom da ko bay rek mu gàddu pañam dem marché ba xam lu mu ciblé euh, loolu xalaat bu baax la waaye ñun xam nañ ni ñuy taxawee ak ñoom ak ni ñuy waxee ñoom bi ñu ma joxee mémorandum bi liir nañu ko am na loo xamante jot nañ leen ca tontu am na loo xamante tontu ñu leen ña leen war tontu ca biir waxtaan ya dinañu comprendre parce que waxtaan bu amee rek comprendre rante am xam nga li bon mooy ñàkk wax mais waxtaan bu amee rek comprendre am ñi nga xamante ne ñooy mbër yi ñi nga xamante dañu nekk en activité wala ñi nga xamante dañoo bëre ba bàyyi CNG kenn mënut a tëj buntu ya parce que CNG pour ñëpp la mais nit ki boo koy seeti aussi danga koy demander mu recevoir la nga am noo fa deme waxtaan ak moom ci njëkk ak teranga parce que defe naa ne ñoom mbër yi li ñu bëgg damay rafet njort ci seen taxawaay dañu bëgg làmb ji gën a baax te ñoom seen coono wàññeeku CNG dañ fi ne pour taxawal réew mi pour làmb jëm kanam waaw ñi bokk objectif war nañoo mën a waxtaan. te du fédération bi ñuy wax nag fédération bi est que keroog dégg naa nga dànkaafu leen ci su amee. dànkaafu ma kenn damay wax loolu ma wax dama ne waxtu wi ñu toll nii ci CNG la ñu nekk fédération bu jotee ba ñu taxawal li ñu war a taxaw parce que il sert à dara fédération te amul mécanisme yi tax mu fonctionner heure bu ñu tolloo ci lu tax mu mën a fonctionner ci loolu rien n'empêche qu'on revienne mais fii ñu toll nii may wax ak yow loolu nekka nekkaguñu ci loolu ñu ngi ciy xalaat mais nekkaguñu ci loolu parce que fédération nit ñi dañ koy wax te du ñu wax promoteur. du ñu wax dara fédération football est ay promoteurs privés ñooy organiser football bi defe naa ne du loolu c'est la fédération qui organise avec ses chartes fii tey ay nit ay ñëw investir seeni million pour wut xaalis loolu lépp da nga a jël en compte jël bëre yëpp dans sa globalité en compte parce que làmb Sénégal du dóor rek am na yeneen façon lamb loolu yëpp. réflexion la boo xamante ne bërët rek yegg ci du ko andi parce que expérience wane na ne fédération amoon na waaye préféré nañu ko CNG la tax ñu préféré bu yéen ñi journaliste bu ngeen ko gëstoo di ngeen ko xam te ma leen dimbale nag yéen ñi nekk ci làmb ji te yàlla def seen xel màcc ci wàll woowu yéen a ko tànn ngeen di ci gëstu di ci partager parce que bu làmb doxee ngeen doxle mais bu yàqule ngeen yàqule loolu loolu da ngeen ko war di sóoraale ba nga xamante ku nekk ci juum ngeen tegal ko loo xam bu ko liiree dina xam ne dafa juum mu mun a gaaw a rectifier balaa yàqu-yàqu di am juillet dinañu jot suñuy caabi kenn la ñuy def inauguration président Macky Sall ci jotam dana ko def mais je vous informe que juillet dinañu jot li nga xamante ne mooy caabi yi boo fa demee sax presque ku bëgg tëgg làmb tey jii kay buñ doloon buñ kii yow mun nga fa sax dem tëgg làmb suba ouverture officielle bi président Macky Sall di ko joxe caabi yi mettre ko en service loolu bu jotee dinaa leen ci wax.